jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki internet yi Sunugal 24 nuyu nañ leen amaat mbégte bu baax dikk dégteel leen li gën a fës ci li nga xam ni rek moom moo di yile xibaar dañu koy commencé ak Karim Wade ak kile di président Abdoulaye Wade ñoom nag xam leen nañu ne dinañu ah, fas yéene jàppale la coalition Diomaye président ci noonu nag la ñu annoncé une euh, plainte contre la personne de Amadou Ba ak ki nga xam ni moom moo di ma jàmbal Diagne pour faux usage de faux danañu ci ñëw yi la xibaar moom Bougane Gueye Dany njiiteel gëm sa bopp moom nag daa ji nay génn ci ab vidéo su xamle ay militant am kenn ku leen neex ci candidat daay fare ci opposition bi mañ ko daal di voteel ba noppi joxe rendez-vous au second maanaam ci euh, ñaareelu euh, tour yi danañu ci ñëw ci euh, ak yaatal gu gën a yaatu bu ñu ci jugee ñu wax ci Cheikh Thioro Mbacké daal di lancé ak alerte ni ki démb dañu daal di koy attaqué sa cortège gannaaw bu mu doon amal meeting de clôture foofu la ca Mbacké mu jox joxar bi ci nag baaraamu tuuma eh, ñi ne nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ba tax mu ci woo autorité ngir ñu yey yàbbi ci mbir eh, bu ni des na ci ñëw moom Mamadou Ibra Kane bi jàpp ni kon na eh, PDS wala kon ki li di Amadou Ba fi mu ne nii nag en tout cas fas yéene daal di gagné li nga xam ne moo di élection présidentielle te sax gagné na ko ba noppi noonu la ko xam gannaaw ba PDS xamle ni danañu fas yéene jàppale ki li nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko ak ki bu euh, Diomaye Diakhar Faye mbokk yi lii kon moom moo gën a fës euh, ci euh, bopp yile xibaar nees kiis ñu daal di koy faram fàcc léegi léegi lay doon bu jingel bi daanoo jërë ngeen jëf mbokki internet yu uh, Sunugal 24 uh, dal leen ak jàmm ci uh, li gën a fës ci yile xibaar dañu koy doore kon ak élection présidentielle mu nekk treizième élection présidentielle yi nga xam ne nañ ko amal fii ci Sénégal suba la fas yéene doon ci dimanche gi sénégal yi nag fas yéene daas seen ay carte électeur namm ko wutali ci bureau de vote ya ngir tànn seen njiitu réew ga leen fas yéene jiite kon niki ci mandat bi ñu dëkkmal. moom njiitu réew président Macky Sall nag jeexal bu 2 avril jotee euh, du yokk lu toll ne tarfatal ay ni ci li nga xam ni moom moo di son mandat dina lem euh, li nga xam ni moom moo ay kaakaam ak i euh, dëbësam génn ca boobu lépp la présidentielle ma ngay xamle ni sax kon na élection présidentielle yi su fekkente ni jeexul ci premier tour bi moom du fi xaar li nga xam ne moo di passation de service bi parce que dafay rek daal di dem bu fekkente ni jeex ne nag dina toog xaar euh, ki nga xam ni moom la sénégalais yi tànn mu jox li nga xam ni moom moo di lenge yi sénégalais yi parmi les dix-huit sénégalais ñi nar a tànn nag ñu ngi toll euh, ci sept millions euh, trente-trois mille huit cent cinquante-deux sénégalais yoo xam ni ñoom ñoo am droit dugg ci biir uh, urne yi en tout cas ngir tànn uh, ki fi nara wutu ki li nga xam ni uh, moom moo di njiitu réew mi président Macky Sall ba tey ci élection présidentielle yi deux mille vingt quatre yi ñu ngi xamal que ni kon daañu ne ñu coûté lu toll ci fukki milliards ak ñeent maanaam quatorze milliards de francs CFA yoo xam ni génnee nañu ko ngir daal di organiser li nga xam ni moom moo di élection présidentielle yi huit virgule cinq millions de bulletin de vote yoo xam ni kon imprimé imprimé nañu ko. Euh, ngir euh, fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoom ñoo waroon a sëgg euh, ci élection présidentielle yi voté deux mille quatre cent cinquante sept observateurs yoo xam ni kon déployé nañu leen sur le terrain ngir ñu superviser li nga xam ni moom moo di vote maanaam sénégalais ni ñu nar a voté kon mi ngi noonu ba tey ci élection présidentielle comme ni ñu leen ko waxee rek lu toll ci seize mille quatre cent quarante bureau de vote kon lañu rek daal di nemmeeku en tout cas sept euh, millions trois cent soixante onze mille euh, huit cent cinquante quatre électeurs gannaaw ba ñu xamee ne ñoom ñoo war a voté lu toll ci seize millions euh, cent quarante mille bureaux de vote noonee la ñu ko daal di xamle d'ici et de la diaspora noonee la ñu ko daal di tënkee ñu daal di ñëw ci moom njiitel Sénat li di Abdoulaye silla ma ngay xamle ni résultat élection yi kon wala kon organisation bi nañu xaar rek comme na mu daan amee ndax dinañu ko daal koy organiser ci organisation bu euh, jaar yoon noonee la ko xamle moom mi lee di euh, Abdoulaye euh, Sylla cette journée du 24 mars 2024 mu nekk datu élection présidentielle ba tax moom mi ñu ci ni ma ngay dalal bu baax a baax xelu Sénégal yi daal di ci lancé benn message bu ama am solo di xamle ni ñoom ma noppi nañu te itam yemb na yëf yi ngir ñu mën a amal ay élection yoo xam ni dafay jaar yoon ci wàllum sécurité itam ci élection présidentielle annoncé la ñu nga xam ne lu toll ci cinquante mille policiers euh, gendarmes et militaires ñoom la ñu daal di déployer ngir ñu sécuriser li nga xam ni moom moo di le vote des sénégalais euh, ni ki ëllëg ci euh, dimanche yi bu ñu ca jugee ñu wax kon ci PDS bi nga xam ni daal di ñuy ñëw indil en tout cas kile la di Bassirou Diomaye Faye li nga xam ni moom moo di ak njàppandalam ci élection présidentielle loole nag. Ah, jur na coow waa PDS Karim Wade ak papa ji Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade ñoom nag ah, xamle nañu ni danañu fas yéene jàppale kile di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ba niki tey ji war nañu gisee ah, moom président Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ba noppi itam woo seen ay militant ngir ñu daal di votel bu massivement ki nga xam ni moom moo di Diomaye Faye ci noonee nag moom Karim Wade ci tweet ma ngay xamle ni wala kon annoncé na une plainte contre Madiambal Diagne ak kii moom moo di euh, Amadou Ba ma ngay euh, xam le gannaaw ba euh, ki lee di Amadou Ba wala kon Karim Wade dañu éliminer ko ci li nga xam ne moo di course présidentielle ci benn supposé corruption boo xam ne dañu ko jiiñ yenn ci ay kilifa yu faare ci conseil constitutionnel ci ay audio yoo xam ne mi ngi circulé la candidat Amadou Ba avec la complicité du journaliste affairiste Madiambal Diagne ñoo ne la ko xamle le quotidien ñoom nag en tout cas ma ngay xamle ni dañu jëm ci lii di faux usage de faux ci ab document boo xam ni fësaloon nañu ko di euh, wax que ni euh, ñi ne di euh, waa PDS dañuy jàppale ki nga xam ni moo di Amadou Ba loolu nag weddi nañu ko ba tax mu fas yéene leen yóbbu ci yoon noonu la ko xamle. moom Karim Wade mu teg ci ni ñi leen di seen ay militants yi fare ci parti bi leen di euh, PDS ñoom ñëpp kon ànd nañu euh, ci dogal yi nga xam ni euh, ñoom njiiti parti bi jël nañu ko ngir jàppale ki leen di Diomaye Faye ak ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ba tax googi les communiqué ñoom xam nañu que ni du dëgg te boowul ci ñoom ba tax les cinquante neuf fédération du ñoom ñëpp décidé nañu ngir jàppale kon coalition Diomaye président noonu la ko xamle moom Karim Meïssa Euh, Wade ba tax mu daal di xam le ni nag dinañu fas yéene amal ak plainte ndax yëf du ñu ko bàyyee noonu ñu ñëw ci euh, Bougane Gueye Dany bi nga xam ni kon daal di nay euh, wax féeteem ci élection présidentielle yi moom Bougane Gueye Dany gannaaw xaar bu yàgg bokkoon nag ci candidat yi nga xam dañ leen rëkkale moom Bougane Gueye Dany daal di nay wax kon ay militant nañu dem votel yenn ci candidat yi fare ci opposition bi ka ñu bëgg votel ba pare itam jàpp ni deuxième tour mën da ñàkk ci élection yi kon kon ma ngay joxe rendez-vous euh, ay militant am ci deuxième tour yi ñu xool naka la ñu ci fa séenee doxale noonu la ko xamle moom mi nga xam ni ah, moom moo di ah, Bougane Gueye ah, Dany Cheikh Thioro Mbacké nekk député nekk itam foofu la ca Touba Mbacké nekkal fa parti bile di Pastef moom nag ma ngay xamle ni nii ki démb dañu attaqué seen cortège gannaaw ba amal meeting de clôture foofu la ca Mbacké mu jàpp ni ñi le di waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo def en tout cas jëf yu ñaaw yooyu attaqué leen ba tax mu cay alerté ma ngay xamle ni nag kon jokko woon na ca euh, ko jot waaye préfet ba jot na ko ba ko ne mbir ya demee ba tax mu ñu daal di cee jël seen ay matuwaay ci noonee lay euh, lancé benn message ci patriote yi ni nii ki suba bu ñuy dem ci yooyu la élection nañu daal di ànd ak dal ak tekk bu ñu wuyu benn provocation ndax jàpp nañ rek ñoom ñoom moome vent euh, te borom ba cax du xeex ak borom baatu neen nee na nag nañu daal di bu baax a baax en te bañ wuyu benn cokkaas ndax lu indi kon jafe-jafe yomb na trop jamono ji nii moom Mamadou Ibra Kane nekk taskatu xibaar nekk itam njiit foofu la ca E-Media uh, moom Mamadou Ibra Kane ma ngay xamle ni uh, yëkkati na kàddoom gannaaw ba PDS xamle ni dana jàppale uh, coalition Diomaye président moom Mamadou Ibra kan ma ngay wax ki li di président Abdoulaye Wade daa dinay woote à ce que ñu vote très massivement ni ki dimanche pour candidat bi nga xam ni moom moo di Diomaye président ba tax nag mu jàpp ni kon ki li di Amadou Ba amee na ndam ba noppi te boobele victoire dara euh, kon mënu ko dindi jàpp na ni kon Amadou Ba euh, téye na ndam li ba noppi ni ki dimanche euh, dina ko dem daal di jëli noonu la ko xamle moom mi nga xam ni moom moo di Mamadou Ibra Kane keneen ki yëkkati kàddoom gannaaw ba PDS kon na fekk jee la coalition Diomaye Président mooy ki lee di maître Abdoulaye Tine ma ngay xamle nag ñoom daal di nay tànn côté bi nga xam ni moom mu baax muy choisir le côté du peuple moom maître Abdoulaye Tine ma ngay remercier ak itam Euh, di wane mbégteem ak euh, contentement di félicité itam ki nga xam ne moo di Karim euh, Wade ak kile di président Abdoulaye wadd njiital PDS ci daal di rek répondre en tout cas ci woo gi nga xam ni waa coalition Diomaye président ñi ngi ko doon woo ngir ñu soutenir leen noonu la ko xam ne ba tax mu jàpp ni bile décision nag mooy décision bi baax ba tax ni ki 24 mars ëllëg élection yi ci nara am boobile vote dafa nekk vote bu historique te itam sénégalais yi amal na leen euh, solo trop ba tax ma ngay woo en tout cas sénégalais à ñu daal di dem très massivement ci biir urne ngir mën a voteel euh, candidat bi la di Bassirou Diomaye jaxaar fay ngir mën fi jëlee régime sortant bi fi euh, bi fi nekkoon kon ak ki di président Macky Sall noonu la ko xamle moom mi nga xam ni moom moo di maître Abdoulaye Tine euh, ñu ñëw daañu ko ak candidat bi lii di Bassirou Diomaye Faye nag daan day def euh, lii la di déclaration patrimoine en tout cas moom xamle na moom Bassirou Diomaye Faye euh, la mu wala kon fësal na la mu am ci ay koom la ñu ca nemmeeku nag mooy boré kon daañu na ci bari lool moom Bassirou Diomaye fay gannaaw ba ma ko xamle kon fësal ko ma ngay sàkku ci yeneen candidat yi rawatina ki la di Ba ngir mu fësal moom aussi tamit koom-koomam ndax dafa bokk ci candidat yi taxaw temm ngir laaj li nga xam ni moom moo di réewub euh, Sénégal mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax agsi nan euh, ci càppaandawu këyile xibaar jaajëfal Dóor waar ak Serigne Saliou sekk bi nekkoon ci technique bi jox leen dig daje léegi-léegi ak yeneen i programme wéy leen di abonné ba sitam ci cloche de notification bi ndax programme yi dafay wéy di continuer ak yéen jërë ngeen jëf